wa miqdaarihi alazim wa radiya allahu tabaraka wa taala an saxaabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wala xawla wala quwwata illa billahi aliyi alazim we stopped at the qissa of sayyidina Musa alayhi salam and his people as namadhij or, as namudhij min namadhij as an example of many examples of cooperation or helping one another as told to us by Allah Tabaraka wa and by his beloved prophet Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The result of their helping one another, the results of their patience, the results of their cooperation with the help of Allah Tabaraka wa Ta'ala was the victory Allah gave them over their enemies. As Sayyidina Musa alayhi salatu advised them, فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ Rely on Allah if you are true Muslims. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا Upon Allah we put our trust. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة wa aqimu salata wa bashiril mu'minin so when they worked together allah tabaraka wa ta'ala helped them and gave them victory they heard the saying of musa fayanzur kayfa ta'malun they heard that in the very uh, beginning and they had this victory over Sayyidun over over Adullahi Allah Tabaraka wa tested them over and over afterwards. Why? Because they disobeyed. Al-khayru kullu al fi ittiba'i wa sharru kullu sharri fi ibtida'i Among the namazij, the examples of cooperations or cooperation or helping one another, we can read this the history or the story of Sayyiduna Dhul Qarnayn in Surat Al-Kahf. What number is Surat Al-Kahf? What is this with in What is this with? She called this with 18 years. No French here. <laughs> Alhamdulillah. إن الرجل متفرنس. الحمد لله. نسأل الله العافية. Surah Al-Kahf is one of the most extraordinary surahs of the Quran. The Prophet sallallahu alaihi wasallam advises us to read the surah at least once every Friday. And he says that whoever reads this surah on Friday, Allah wa ta'ala will give him the light between the two Fridays. meaning he will see his way up to the next Friday. Suratul Kahfi will be a guiding light for the person who reads it on a Friday until the next Friday. Why? Because all the crises, all different types of crises we face in life are discussed in this surah. Every single problem of life is in this surah. The causes of the problems, the symptoms, and the solution. The first and the greatest problem is the problem of faith, of Iman, the crisis of Al Iman. And you can see uh, that problem discussed in the Qissa of Ashab al Kahf. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقي كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada fa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayni ahsa lima labithu amada nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu because they were in a society who did not have iman and because they had iman and they wanted to protect this iman they fled but when they fled they made a plan they were a group and they were i had what we call teamwork the beginning of the plan was that they put their trust on Allah. And they knew that themselves could do nothing. They couldn't do anything by themselves. That's why they started with what? With dua. رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ they were fitier because they had what? Futuwa. For you to work together, there should be futuwa. إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ For the team to work, the team has to have iman. And whenever there is iman and there is teamwork, there is trust on Allah, there is dua, Allah will bring hidayah. Was it now? Huda. And whenever Allah tabaraka wa ta'ala bring hidayah, on top of all these things, then he will give you what? Courage. Because without courage, you cannot fight. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ So you can see the qadi of iman discussed there. Causes, you know, حب الدنيا, حب النفس, المال, كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إلى آخر. And symptoms is the very things that they were doing. Not only were they not believing men and women, the people from whom this young people came from, uh, young people came, they were, torturing, they were attacking. They didn't want to see anyone down there, trying to do what is right. So they would attack them. So these are the very symptoms of the crisis or the manifestation of the crisis of of Iman in a society. When the good person becomes the extremist, the terrorist, the outdated, the one who's to be laughed at, the one who needs to be reformed. We have today what we call Islam France or Islam de France. And Islam that is for France. So that means the Muslims should reform Islam according to the so-called French values. And the cure is in Ashab as Allah Tabaraka wa says. So whoever reads us Surah you really ponder upon this crisis of Iman. It is one of the biggest crises of human history. The second crisis that is discussed is the crisis of what? Wealth. Wealth. And as is discussed in Qadiyya or in Qissa of the two men. واضرب له مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا So because he has now wealth, he sees himself. He forgets Allah. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا qaala lahu saaxibuhu wa yuxaawiruhu akafarta billadi xalaqaka min turaabin summa min nutfatin summa sawwaaka rajulan walaakinna huwa Allaahu yarbi laa ushriku bi rabbii ahadan ilaa aaxiri maa qaal wa lawlaa iz daxalta jannataka qulta maa shaa Allaah so you see here the problem and the solution when you read that you will have no more problem of wealth during that week you will know that whatever you have is from Allah. And whatever you look for and you didn't get it, it is all because Allah didn't want you to get it. If Allah chooses for you, thank Him times more. As one of the, our scholars said, if I make dua and Allah my dua, I thank Him one time because He gave me what I want. But if He does not give me what I want, I thank him 10 times more because he chose for me and his choice is better, than mine. And you know that you will not miss what Allah wa ta'ala writes for you. And you will never get what Allah wa ta'ala has not written for you. ما أصابك لم يكن ليخطئك wa maa axta'aka lam yakun li yusiibak rufi'a al-qalam aw rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf and the third crisis is intellectual crisis azma ilmiya we have azma imaniya aw aqadiya أزمة مالية والثالثة هي الأزمة العلمية intellectual crisis when you have your degrees your diplomas you think now now in America what do you say oh he made it to university had his master he's a, he's a smart kid he's a smart kid because he had a diploma <laughs> isn't that funny one of our parents used to say al jami'atu hiya madrasatun tadxuluha jaahilan mutawaadian wa tataxarraju minha jaahilan University is a place where you enter as humble ignorance and graduate from as arrogant ignorance we go to university to pass exams, exams and pass exam. Once we pass that exam, we're done with it. And we got that class. We go again to another class. All we have to do is to pass the exams. And after four years, we have the bachelor. After years, we have the master. After years, we have the doctorate. Oh, you are doctor so and so. You are professor so and so. engineer so and so. You are, and you know you're nothing. You know, because you have a problem. The first thing you do is go to Sheikh Google. You go to Medina University for a couple of years, you become a muhaddith. And all you have memorized is maybe 1,000 hadiths, maybe 250 hadiths every year. And now you are a muhaddith. In front of you are hundreds of thousands of hadiths. Some of them are authentic, some aren't. In front of you are, is ilmu rijal. In front of you are, in front of you are, in front of you are. Because there are different types of ulum al-hadith. But the university said you are a scholar. And you have to accept it. And you have to work as a scholar. And you know it's not true. You're not. One of our parents used to say when you come with a university diploma, he said, he used to say, Shahadatu Zur. This is false testimony. Then he adds, but you can make it true. لكن لك يعني أن تجعلها شهادة حق. That means the university teaches you how to learn, but doesn't give you knowledge. Knowledge is not what you just read and pass the exam. It is something you know and you have here. And you act upon it. Professor Allah said, Man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Whoever acts upon what he knows, Allah tabaraka wa ta'ala grants him a knowledge that he did not have. So we know, and knowledge is not what we read, but it is what we know, what we memorize. Hifz, as Imam al-Shafi'i rahmatullah alayhi said. علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق said, My knowledge is with me wherever I am. My heart is its container, not batn sunduk, the cases or the, um, you know, how do you call this, the shelves. No. In كنت في البيت كان العلم فيه معي. If I'm home, my knowledge is home. أو كنت في السوق كان العلم في السوق. When I'm at the marketplace, then my knowledge is at the marketplace. That's one of our shuyukh in Mauritania used to say that the scholars of Shinqit, when they travel to different places of the world and they meet the scholars, he said during the day they are all scholars, the shanaqita and the scholars of that place. But when the night falls, the scholars of that place become what? Students and the Shanakita scholars. How? He said, because the Shanakita, they have their, knowledge in their chest. While many of the scholars in different part of the land, their knowledge is in the book. So during the day, everybody has a book. Everybody is a scholar. But at night, only those who memorize as al imam becomes becomes the scholar as Imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi said man hafidha al mutun haza al funun man hafidha al mutun haza al funun so Allah tabaraka wa ta'ala discusses here the crisis the intellectual crisis for those of us who seek knowledge And even those of us who have knowledge, if we do have knowledge. And Allah says, وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا and the only thing he asked the Prophet ﷺ to seek and increase, to ask for Allah to give him more, is knowledge. العلم وقل رب زدني علما Musa alayhi salam, the most learned man of his time. according to his knowledge, was asked by Banu Israel, "Is there anyone who knows more than you? More than you?" He said, "No," because he was Kalimullah. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Allah spoke to him directly. يا موسى إني إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي fa xud ma aataytuka wa kun min ash-shaakirin wa katabna lahu fi l-alwaahi min kulli shay min kulli shay walakinahu lam yaqul kulla shay lam yaqul wa katabna lahu fi l-alwaahi kulla shay innama qaal min kulli shay ay shay'an min kulli shay ay ma yaxtaaju min kulli shay so Musa <laughs> naturally said yes he thought he was the most learned man Allah said to him, No, you will not. And he sent him to meet Ar-Rajul As-Salih, Abdan min Ibadina, Sayyidina Khidr. Some said he was a prophet, some said no, he wasn't. Shaykh Al-Hajj Malik, rahmatullah alayh, in his Khilas al-Dhahab fi Sirati Khayr al-Arab said, وفي ولايته أو كونه ملكا قل إنه صالح تصدق وتحترم وإذا خضر عليه السلام was a wali or, the, or an angel or a prophet. Just say he was a righteous person. A Nabi is Salih, a Wali is Salih, a Malik is Salih. But Shaykh Sidi Ahmad al-Tijani said, no, he was not a prophet. Why was he not a prophet? He said, it is in the Quran. Quran tells us that he wasn't. Because Musa alayhi salam knows that prophets do not disobey Allah. Yet when he saw Khidr alayhi salam do something that is against his Sharia, he told him, This is a sin. This is a crime. Why did you do this? So Musa alayhi salam blamed him. And if he was not a, if he was a prophet, Musa would know that the prophets would do nothing except from except by the permission of Allah. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا imran shay'an nukran ak qatalta nafsan zakiyatan zakiyatan bighayri nafs so the fact Musa accused him and blamed him we know he was not a prophet because he would know that a prophet cannot do something without the permission and the idhn, the authorization of Allah Ta'ala. Anyway, Allah Tabaraka wa Ta'ala solve the intellectual crisis via Musa alayhi salam. He used Musa to help us. Musa did not say anything wrong. But as I said, Hasanatul Ibrari, Sayyatul Muqarrabin. The goodness of the good people are sins for those who are close to Allah Tabaraka wa Ta'ala. Because those who are close to Allah Tabaraka wa Ta'ala, everything is pure for them. No mixture. Everything is pure. Even their their their their maqam in Jannah is the purest one. You can see that in Surah Al-Mutawwifin. When Allah Tabaraka wa Ta'ala talked about Rahiq, that he will give to Al-Abrar, kallaa innal abraara lafii na'iim alal araa'iki yanzuruun ta'rifu fii wujuuhihim nadrata na'iim yusqawna min raxiiqin maxtuum arraxiiq asharaab assaafi min kulli shawb wa qiila alxamr alcatiiq assaafiya laa yusaddacuuna fiha wala yunzaru min raxiqin maxtuumin xitaamuhu misk wa fi dalika falyatanafasi almutanafisun wa misaajuhu min min tasnim so raxiq is mixed with some tasnim what is tasnim aynan yashrabu biha almuqarrab المقربون يشربون تسنيما صافيا أما الأبرار فيشربون من رحيق مختوم مزاجه تسنيم مزاجه من تسنيم So they have some tasneem mixed with rahiq al-abrar. أما المقربون تسنيم والتسنيم أصفى وأرفع شراب في الجنة عينا يشرب بها المقرب التسنيم So Musa was not supposed to say that because he is from Al-Muqarrabun. But Allah Tabaraka wa Ta'ala wanted to use Musa to help us. To never say, ah, yaqulu ba'duhum arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu hum li wa indi four things destroy a person ana I we I have and indi yaquluna hadha indana ghayru jaiz faman antum hatta yakuna lakum indu according to me who are you to say according to me Eh? So Allah Tabaraka wa Ta'ala is teaching us to avoid Al-Indi, Al-Indiyatu. He destroyed Qarun because of India. إنما أوتيته على علم عندي. He said, this is my, and because I know أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون And the fourth crisis that Allah Tabaraka wa Ta'ala discussed in this surah is what we need here is the crisis of azmatu sulta, power. And that is seen in the qissa of Sayyiduna Dhul Qarnayn. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا xata ida balaga magriba alchamsi wajadaha taxrubu fi aynin xadia wa wajada cindaha qawman qulna ya dha alqarnayni imma an tucadiba wa imma an tattaxida fihim xusna qaala amma man zalama fasawfa nucadibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayucadibuhu cadaaban nukra wa amma man aamana wa camila saalixan falahu jazaau lxusna wa sanaqulu lahu min amrina yusra ثم اتبع سببه حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وقرئ بين السدين وجد من دونهما قوما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين inna yajuuja wa majuuja mufsiduna fil ard so sidna Dhulqarnain allah tabaraka wa ta'ala showed us how to fix problems and crises of that has to do with with power through him but one of those ways of solving those problems and crises is what he what we need here the, example of ta'awun with the people he found at the Saddain. When he went to these barriers, he found the people. And these people complained to him. What did they say? يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. O ذو القرنين Surely Gog and Magog are spreading corruption throughout the land. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا we pay you tributes, provided that you build a wall between us and them? Qal, what did he say? He said, ما مكني فيه ربي خير فأعينوني فأعينوني You never say I can do it. فأعينوني With all the power Allah gave him, he said فأعينوني The scholars, they said, four people owned the entire land during their reign, during their rule. two of them are Muslims and two of them are are kafir. The two Muslims were Dhul Qarnayn and Sayyidina Sulaiman. And the two kuffar were Bukhtu Nasr and Namrud bin Kanaan. So you see, if this dunya were only for those who believe in Allah, then Allah Tabaraka wa Ta'ala would not have given to the disbeliever what could weigh janaha ba'udah. What could be the weight of janah ba'udah? The wing of a mosquito. But because dunya is for everyone, Actually, it is the Jannah for the kafir. Because the kafir, whatever he has, let him enjoy it. That's his Jannah. And no matter how much he suffers, let him enjoy it. Because his suffer in al is going to be worse and worse and worse. So his suffer in Jan is going to be like a Jannah for him compared to his suffer, you know, in in akhirah. Because one, as one of the scholars said, there is no sin like shirk. No sin is like shirk, but no punishment is like hellfire. لا ذنب مثل الشرك بالله ولا عذاب مثل عذاب الله بالنار. أسأل الله لنا ولكم العافية. Dunya sijnul mu'min. The believer, no matter how rich he is, no matter how wealthy he is, no matter how big his opportunities and all the position and privileges he has, he still has limits. There are things he cannot do because he's in prison, because he's a Muslim, because he has hudud. And no matter how much he enjoys in this life, if you compare the enjoyment of this life to Jannah, this life is prison. It's nothing. There's nothing like Jannah. As Allah Tabaraka wa Ta'ala says, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُ مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ As the Prophet ﷺ described, in Jannah there is mala عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ ولا خطر في قلب عبد That's Jannah. You will have whatever you want, Allah says. And it will not end. That's why Allah says, تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ You will see the people of Jannah. You see how that these people, they are in great enjoyment. تعرف في وجوههم نظرة النعيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة والعياذ بالله تظن أن يفعل بها فاقرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة So he said ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما That which my Lord has established to me is better than what you offer. I'm not I don't I don't look for money. I don't look for you. As all the prophets and the awliya, they don't look for money when they serve people. ما أسألكم عليه من أجر. In Nigeria, إلا على الله. Because no one could reward them, and no one can ever reward them but Allah Ta'ala. That's why he said, That which is my Lord, that which my Lord, that which in my that in which my Lord has established me is better. than what you offer. But assist me, fa'ainuni. But assist me with strength, fa'ainuni biquwa, i.e. manpower. I need, you know, a team work. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما I will make between you and them a barrier آتوني زبور الحديد Bring me blocks of iron حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا Then when he had filled up the gap between the two mountains, he ordered, blow, انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة When the iron became red hot, he said, bring me molten copper to pour over it. آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا So they, Yajuj and Majuj, were unable to pass over it, nor were they able to effect in it any penetration. وما استطاعوا له Nabba. How could he do that? After the help of Allah wa Ta'ala, the principle of working together, teamwork. There is no one that cannot do something. When we come to the masjid, some of us can lead the prayer, some of us can organize. Some of us can do community work. Some of us can clean. Some of us can communicate. Some of us Nobody should say, I can do nothing. It has to be, a team work. Yadullahi ma'al jama'ah. What it is then, whenever we do our homework and our teamwork, and we work together and we have results, let's not attribute the results to us. Let's take the results back to Allah Tabaraka wa Ta'ala. That's why what did he say? وَلَا هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي هذا رحمة من ربي This is my Lord's mercy. This is a mercy from my Lord. This is Allah's mercy. The proof is what? فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّ When the time comes, Allah will. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا So the time will come when Allah Tabaraka wa Ta'ala will release Ya'juj and Ma'juj. But as of now, we did it because we followed the guidances and the orders of Allah Ta'ala. Ta we worked together and Allah Ta'ala granted us tawfiq and success. this example of Zulqarnain is to be also uh, followed. Alhamdulillah, it's getting late. We'll have the second prayer at 2.30 بإذن الله تبارك وتعالى I ask Allah Tabaraka wa to grant us tawfiq, sure. to make it easy for all of us to benefit from these beautiful nights. As I love to say, let us try to make our Ishas and our Fajrs at the Masjid during these nights. Because if one prays Isha in Jama'ah, the Prophet says, it is as though he has prayed the, the of the night. Uh, if one prays Fajr in Jama'ah, as though he has prayed half of the night. So Isha and Fajr in the Jama'ah, the masjid will make it full night prayer for you. You don't want to neglect that because you need full night prayer for Laylatul Qadr. And use the comprehensive du'as you learn from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. and the most important one is Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni but don't limit yourself to that this one is a way of teaching you how to use the comprehensive du'as that you can find in the Quran and in the Prophet Prophet's traditions, Prophet Sunnah. And we also want to make sure that the night does not start at Isha or at Tarawih or at the end of the night. The night starts at Maghrib So from Maghrib to Hajr, we want to engage as much as possible in worship. And we also want to make sure that we do different types of worship. We just don't, we, we do not just pray and go or make dua and go. We pray, we make dua, we recite the Quran, we make dhikr, we make istighfar, we make salat ala nabi. But we do also community work. We help people. we give sadaqah, we, we, we, we. We call our parents, we check on people. We do different acts of worship. For every act of worship is equal to more than a thousand months worth acts of worship if that falls on Laylatul Qadr. And any night can be Laylatul Qadr. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, amin, Jamaya. Thank you. Thank you. Turn this one.